thank you amee internaute enquête 221 dala nag jàmm ci suñuy xibaar ak ci people la ñu koy dooree nag di coow la amoon ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye mel na nag boobu la coow taxul benn yoon ñii di personnel de santé yi la ubbi seen ay gët keneen ka fa ñàkkaat bakkanam foofee ca diwaanu Louga di wuyoo ci Penda Sall moom mi rek gannaaw ba nga xamee ne rek sage-femme yu hôpital Amadou Sakhir mbay amaloon nañu après grève la ñu ko yóbbu ci benn hôpital ba ñu dippee hôpital Ibadou ba ba noppi moom mi le waaye ba mu wasine ba noppi rek dafa ñàkk li nga xamante ne moo di deret bi mu ñàkkee deret nag ci loolee daal daal di génn àdduna gannaaw ba nga xamante ne ñu nekkoon ci hôpital boobu mu wasine rek def nañ la ñu mën a ngir rek ñu mën ko dimbale waaye dafa tombale woon rek ñu sage femme ya daal di grève foofee ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye naka noonu nag lañ ko yóbbu ci ab clinique ba ñu ko yóbbee ci clinique ba ba noppi clinique ba nag ka fa nekkoon jéem na woo foofee te hôpital Amadou Sakhir mbay ngir rek ñu mën ko may ay poche de sang pour mu mën a rek dimbali ki nga xamante ne daal moo wasin bees di Penda sal ngir mën ko rewle rek mu mucc ci jàmm waaye nag mu mel ne jàmm ak pexeem yàlla ak dogalam dafa mujjee ñàkk bakkanam moom Penda Sall beneen ba ca topp mu ngi amee foofee ca hôpital Fann di rek ab soxna su ñàkk bakkanam gannaaw ba ko ab crise d'asthme daanalee mu ñëw rek waaye dañu ko daal négligé ba nga xamante ne rek dafa mujjee génn àdduna moom soxna Sile ki nga xam ne nag di nijaay ci moom mi la daal di génn àdduna bañ ne sax ñoom ñi le rek dinañ biiral ab plainte hôpital boobee nga xamante ne rek ñoo négligé seen doom jile ba mu rek génn àdduna tax rek ñu daal di samp ab laaj na daal ñàkk yërmande gile am rek ci hôpitaux yi wala sax ci personnel de santé yi fan rek la ñu jëmee ñu ko yeggalee ci diwanu Tambacounda la fa xewoon nag du lenn lu dul ab xale bu toll ci fukki at ak juróom la ay moromam jàpp violé ko ba ñu yóbbu ko foofee ca urgence ba ña ko violé nag ca gën ndaw fukki at ak am fukki at ak juróom benn yooyu xale yu góor yu ñu fësalul seen tur ci biir Seneweb kecce gën a ndaw nag mu ngi wuyoo ci Ka Sow toll ci fukki at ñaar A Sow M ak est démbale ñoom ñi leen nag seen at a ngi toll ci fukk ak juróom benn la ñu leen di toppee rek ni daal dañu violé xale bu jigéen bi la ñu fësalu turam am fukki at ak juróom képp dañu ko violé rek ñoom ñëpp di viol collectif ba ñu rek mujjee ko yóbbu foofee ca urgence ba la ñuy doon gune doon gune nag taxul benn yoon kii di procureur ba daal di dawal yërmande ci la ñu leen di toppee daal di nañ leen di daan ku ne ci nekk ci ñoom juróomi atu kaso détention criminelle noonu la ñu ko xamle ci biir Seneweb yeggaleek xale bi leen nga xamante ne nag dafa génnoon ab yor-yor yu uti ji la mu lekk ci la ko nag ab samba bay jàppee ci loxo ne ko rek dama bëggoon nga am kër goo ma wan ndax fii dama fi ñëw rek te gan laa fi jàpp ca loxo ba diri ko ba ci ab bâtiment xale ba di rek ragal wala dax di fipp ngir rek bëgg a génn ci loxo samba bu yooyu daal di daw naka noonu rek jot na ko sax rendi ba gaañ ko ci loxo gaañ bu métti ñoom ñi leen nag taseeg xale bi la ba ñu ko gisee tiit la ñu def ndax deret ja nga xamante ne rek sàngoon na ko naka noonu noonu la ñu duggee foofee ca bâtiment ba nga xamante ne rek Samba Boy dugaloon na ko fa ngir fas yéene koo rendi rek daal di ñu gis rek ay foofu ay jumtuwaay yoo xamante ne daal ngir rek bëggoon a rendi xale bi moo ko taxoon jóg fekkuñ fa kenn ndax moom mi la rek dafa mujje daw gone gi leen nag mujjee ci jëlee ay gaañu gaañu yu métti ba def ci opération ci lu tollu ñaari yoon boo ko gisee nag la ngay njëkk a nemmeeku di. blessure yi nga xamante ne rek Samba Boy bi la teg na ko gune gile ah, tam toll ci juróom-ñetti képp noonu la ñu ko magam bu jigéen bi la xamale su suñu ay naataango. Tange Tandian daal dinay waat kaamil alxuraan ba ca loxo ba daal di xamal rek ne daal ki nga xamante ne moo di Astou Dione la ñu koy toppee amul leen loo xamante ne mën nañ ko ci dindi ndax dëgg la ñeenti weex ci ginnaaw nag moom Tange Tandian woowoon na ki nga xamante ne moo di El Hadji Ndiaye di directeur bi la mu ko rek dafa am repos médical fan yii le eh, liggéey siwul ci noonu moom Tange Tandian daal dinay xamal ki nga xamante ni moo di directeur télé ba ni ko daal sa employé bile dafa rek yàq biir eh, ndax daal ki ko biiral ab responsable foofee ci diwaanu Pastef nanguwul nag la nga xamante ne moom la ko ndaw si di jiñ tax na rek mu daal di rek yàq biir bi bile looloo ko teree liggéey si waaye du leneen ba tey ci ay kàddu Tange xamal ne daal bi mu ko xamlee ki nga xamante ne moo di directeur boobu la télé daf ko xamal ni ko rek bàyyil mu sedd moo tax boobaak léegi rek àdduwul la ca jëm waaye nag bu dëgg jotee nañu ko wax rek jàll ci leneen noonu la ko xamle moom Tange Tandian di rek présentateur foofee ci diwaanu Leral TV Mame Gora Diazaka convoqué nañ ko niki tey jilee foofee ca police bu Rufisque boobu la plainte nag lu ko waral di ñàkk déggoo gu am ci cité Almadiya ak ñi nga xamante ne ñoo di Bissa ci ab centrale béton boo xamante ne rek dañu ko rek installé ci booru cité yooyu boobu les société nag ñoo daal di porter plainte ki nga xamante ne daal moo di Mame Gora Diazaka gannaaw ba nga xamee ne rek ay libani daal wala sax ñoo xamante ne bokkuñ fii ci diwaanu Sénégal ñoom moom boobu les société ne nag moom la koy toppee dina leen nag daf leen fekk foofu di leen saaga wala sax di leen menacer de mort moom Mame Gora Diazaka ay kaddu seen porte paral boobu nag mu ngi ñuy xamal ne daal boobu la société amul benn yoon autorisation ba fay samp loo xamante ne daal da di tere rek ñuy dund seen dund ko na mu waree wala indi sax ay gàllankoor jëm ñoom ñu le sax daal di fay def li ni mel amuñ benn yoon dogal wala sax dëkkuñu fa bay def yenn yile ci loo xamante ne daal amuñ benn yoon luy firnde rek ne daal ñoom ñu le rek am nañ boobule autorisation fu ñu leen woo dinañ wuy ji ngir rek xeexle ki nga xamante ne moo di maam Mame Gora ka ca la nga xamante ne moom lay xeex ci boobule diwaan dina rek ñu indil leen ab audience publique di seen combat rek firndeel lan moo waral rek ñu def fa lu ni mel danañ ko tëjee ci kàddu ya nga xamante ne kii di Kebs Thiam kon animatrice foofee ci diwaanu 2STV ba noppi gannaaw ba mu fa jugee daal di dem fi nga xamante ne moo di TFM ñu gëjoon ko dégg lool bay laajte sax ci lan la nekk nekk moom Kebs Thiam mile daal nay xam ne rek ñi di waa TFM dañu ko xañ ay droit am ba noppi daal di koy xañ itam li nga xamante ne moo di émission ga mu fa doon def xamal ni itam bu loolu amee jugul benn yoon dem ci ay média wala sax di ñaan ay interview ci yenn ci sit internet yi ngir rek mën fa ca am buzz wala ut ca rek loo xamante ni daal dina ko ca am ruqam la toog di xeexal ñi nga xamante ni ñoo di diaspora yi noonu la ko xamle moom Kebs Thiam ci ab live ga mu doon amal. ami internet enquête 221 fi la ñuy yem ak yéen ci seen xibaar ak ci people di leen jox dig daje suba incha allah waaye bu leen fàtte benn ci suñu page YouTube bi di enquête 221 euh, TV.